محمد صفيك المحمود الفاتح الخادم والهادي إلى صراطك الناصر يا رب العلا أول من لبى نداءك وعبد من حيث إلا الواحد الفرد الصمد أدعوك جاعلا وصيلتي إلى عظيم ما عندك من فضل على جاه وليك أمد الخلق أحمد كل حامد للحق خلعة نور ذاتك المطلسم وعينه وسره المكتم رحمتك المهداة للأكوان من بحر فضل واهب المنان خير وصيلتي وخير عدتي وخير ملجئي وخير عمدتي سيد كل أولي التجاني منبع سر العلم والعرفان أحمد عين حضرة الإيمان وحضرة الإسلام والإحسان عين التقى والجود عين الرحمة عين العناية وعين المنة عين المضايا والمكارم العلا عين السعادة وينبوع الإله عين الوصول عين حق المعرفة عين اليقين حقه عين الصفة وعين الأسماء وعين الذات وسرها المكنون في الزوات أكرم عابد وأصنع صاجد لله ربنا الكريم الماجد أن تلهمني شكر ما أوليت وما وهبت لي وما أصديت لما علمت ولما لم أعلم من منن لم أغصها ونعم وتغفر الذنوب عمدا أو خطأ وتكشف الحجاب عني والخطاب حتى أشاهد جلال الخالق في كل مخلوق من المخالق حتى أراعي حقوق الباري في خلقه وما لهم من جاري حتى أعامل عباد الله فيه به لله لا كالله فشرت من رقية الأغيار عبدا لرب خالق قهار عبدا له مطارحا بين الورى خيرية الخير وراء وراء وراء أعبده موحدا توحيدا أهل المعارف فلن أحيدا فلا أرى من ذرة في الكون إلا ولي علم بها يهديني إلى صراط ربنا الصبي ولصراط المصطفى النبي صراط شيخي أحمد الولي وارث أحد لبني لوي وكل ضعف حزنك حسنك الحصيني تحت لواء نبيك الأمين وفي حما وليك التجاني شيخ المشايخ العظيم شاني أنا ومن ينمى إلي أطينا يا ربنا ومن إلي دينا وكل من أحبني أو أحسنا إلي يوما خفية أو علنا كذا الصريف يحبنا الكرضاذي ذو العلم والصلاح والإعزاذ بلغنا الله وإياهم إلى زر المنى في الخط مركز العلا ثم صلاة ربنا الفطاح على النبي الفاتح المفتاح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 mbokk yi gannaaw ba nu santee yàlla julli ci sang bu tedd ba tëdd medinatul munawara borom barrière leer ba nga xamni lépp lu yàlla bind bi ngi ko bind ci barkem bu dul woon ak mom yàlla du amal dara wama maa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud wa huwa habib sang bu tedd ba ngi nonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci mom ñaan yàlla lépp luñ julli ci mom yàlla nango ko yàlla nangul koo xamante boo jullee ci mom ben yoon yàlla julli ci fukki yoon bo julle ci mom fukki yon yàlla julli ci témir yon ku julli ci mom témir yon yàlla julli ci yow yon ta sallallahu alayhi wa sallam nee ku julli ci man junni yon sama mbag ak sa mbag ba biir aljana wa kullu man salla alayhi marra salla alayhi allah 10 marra wa kullu man salla 10 marra salla alayhi allah 100 marra wa kullu man salla 100 marra salla alayhi allah 1000 marra kon nak adimi salat ala nabii muhammadin فإنها مقبولة بلا تردد أعمالنا بين القبول alqabuli illa salaata ala nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam julli ci sang bu tedd boobu waaye ziar mboolem saxaaba mi ziar sëtam bu tedd bu tëdd faas tëdd dëkk bu naan Bulayda cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mu yóbbu mboolem njabootu cheikh na Ahmada Tidiane Chérif yëpp ñu ziar leen waaye ziar muxaddamam yi jiital ci cheikh Mouhamadul Ghali Chérif ñaan yàlla yàlla dëgg yàlla yokk leeram ci barke yonent yàlla Muhammad teg ca góor ga ci orofande cheikh Omar Foutiyou Tall radiallahu taala anhu ziar ko mu yóbbaale mboolem njabootu Cheikh Omar Fouti yi yëpp daal di dem ba gaaye dëkk bu naan waalo euh, quartier bu naan gaaye ziar maam alfahima yoro wele radiallahu taala anhu mu yóbbaale mboolem sëtu maam alfahima yoro wele yëpp ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm waaye dem ba ca septième gaar góor ga góor gu tedd ga tëdd ca dëkku leer ba teraanga ba dëkku xéewal ba dëkk ba nga xam lu fa waay ñaan yàlla mu nangu ziar góor yàlla googu maam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala anhu ziar ko ñaan yàlla yàlla dollee yokk leeram taas ñu ca barkeem moom mboolem njabootam yi yàlla yéesal seen yërmande bi jaayi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam noonu itam la ñuy ziara mbooleem njabootu bu ne yëpp ziar leen ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm waaye jiital ci ziar bi ci ak nuyoo bi yëpp xalif général de Tidiane Serigne Babacar si Mansour ñaan yàlla yàlla dollee guddal fanam moy ko wér sàmm ko aar ko dëgëral ko ba bépp yéene bu mu am ci kër maamam Cheikh Al Hadji Malick radiallahu taala anhu am ko ci diina jëg tarixa beeg mbokk gi yàlla na ko yàlla defal bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu tabarakallahu nuyoo bi la jaarale ci loxo xalifa bi rek mu joxuñu ko mboolem njabootu Demba Bunna kilifa diine yépp nuy leen ziar leen bàyyiwun kenn bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi nuy na la ziar na la ñaan yàlla yàlla defal la jàmm bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mi ngi noonu tey nag seen émission takusan yonent yàlla Muhammad sallallahu sallallahu alayhi wa sallam tey nag di bis bu màgg di spécial takkusaan yonent yàlla Muhammad ñu jagleel ko suñu wayjur wu baax jagleel ko koo xamante si nii ku ne xam na ko ci tarixa Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif ni mu ci nekkee ni mu ci nekkee kilifa di sunu mam Abbas Sall nga xamni mam Abbas Sall boko tuddé xel yëpp day dem dal day dal di dem ci Cheikh sayyid Ahmed Tidiane Chérif waye xel day dal di dem ci tabarakallah Cheikh Al Hadj Malick ak njabotam yëpp ñaan yàlla yàlla yàlla yokku seni lèr tay nak lay am 30 ans ci souf fan fanweeri at nga xamni 1990 la génn aduna ba 2020 tay ji lay am fanwéri at ñu jël émission takusan yent yàlla Muhammad jagleel ko goor yàlla gu tedd gogu ñaan yàlla yàlla yokku léram bi jahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waye tamit invité ci ño xamanteni ñëpp leen ragné invité ci ko xamanteni si ni yonent bi la waye bu waye bu addo rek tabaarakallaahu xol yépp day daal di sedd muy Cheikh Mar Abbas Cheikh Mar Abbas boo ko tuddee tabaarakallaahu yaakaar naa ni tudd nga képp koo xamante ni day tagg yonent yàlla Muhammad kër sunu maam Abbas Sall ci Louga mu ànd ak oustaz bu tabaarakallaahu bu bu bu baax oustaz boo xamante ni fa tabaarakallaahu bu ngeen ko déggee mu àddu nga xamni fan la joge jógewul fen dul sunu kër maam alxaaja Abbas Sall mi ngi nonu ñom lañ fi dalal nga xamni tay ñoñu fasiyene bégal ci borom barrière leer ba tëdd medinatu munawara di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bégal ñu ci kan ci ko xamanteni si wax deug yàlla kep ñëpp ko joxoñ ñëpp ko joxoñ mu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee naa ba tey li góor yàlla yi am yëpp amuñu ko ci barke kenn ku dul barke yonent yàlla muhammad bihi naala maa naala rijalun maratiban min al maliki al allaami jallat an il hasri tabarakallahu oustaz Modou Kama lan fi lan lan fi dalal tabarakallahu mi ngi noonu di ngeen dégg inchaa allahu ci kanam mu waxal ñu yonent yàlla muhammad waaye jaarale ko ci xasida mag ñi waaye jaarale ko ci mbindu mag ñi rawatina mbindu si maam mi mu se mi mu maam Cheikh Alhaaji Malick boobu radiallahu taala anhu waaye waxal ñu xasida yoo xamante si nii Euh, sunu maam alxaaji abbas sall wax na ko ci yonent bi wax na ko ci cheikhuna tidiane radiallahu taala anhu mbokk yi ñi ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarlu ñun di ñu bëggee nag wax dëgg yàlla saa su ne ñu ànd ak ñun ci tàkkusaanu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam émission bi nag benn ki ko sponsorisé muy Isicar Sénégal Isicar Sénégal mooy sponsorisé émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla boobu ba tey mi ngi ànd ak ñun di ànd ak ñun ci tàkkusaanu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yëngu ci wàllu location oto ak bant xam naa Cheikh Mar boo paree da fay daal di àgg rek wut fa benn oto macha allah mi ngi noonu tabaarakallahu mbokk yi duñ def dara lu dugg nag ci ci e, émission bi ndax wax dëgg yàlla ñi ngi jéggalu ci retard bi tuuti rek ah, ah, ñi ngi koy jéggalu bu baax di ko jéggalu téléspectateurs yi di ko jéggalu képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan ak foo mënti nekk ci àdduna bi duñ def dara lu dul bàyyi Cheikh Mar tabaarakallahu mu nuyoo dugg ci borom barrière leer ba ca Madina àddina sang bu tedd ba nee naa ba tey foofu wan nabiyu rahmati boo ko déggee du kenn yonti yàlla muhammad la bu ko jiñ almuxaddam Babacar ñang de nduroowunu sax bokkuñu yoon foofu wan nabiyu rahmati kooku kenn rek la mu yonti yàlla muhammad mooy baabu kulli niamati mooy yonente bi bul bul la koy waxal da naan koo koy masdaru kulli xikmati mooy sallallahu alayhi wa sallam kan la malja u kulli zaibi bala nga koy xam nag ëllëg yowmal xiyaam shafiuna xayrul wara tabaarakallaahu ba mu teelu drapeau yow alhamdi ba ñu xam ne sang bu tedd baa ngi nii Cheikh Mar ñu bàyyi la nga dugg ak ñun ci yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rabbana bi'izzati wa nuri ma laha min as-sifati ya rabbana bi sirri izzati wa nuri ma laha min as-sifati عين الوجود أصل كل جودي محمد صفيك المحمود الفادي إلى صراطك الناصر يا رب العلا أول من لبى نداءك وعبد من حيث إلا الواحد الفرد الصمد أدعوك جاعلا وسيلتي إلى عظيم ما عندك من فضل على جاه وليك ممد الخلق أحمد كل حامد للحق خلعة نور ذاتك المطلسم كسب انت يا محمد وعينه وسره المكتم سيدنا محمد سريا باصالنين رحمتك المهداة للأكوان كندو ينتي الله محمد سواجه رحمتك المهداة للأكوان سريا باص نينا فلا أرى من ذرة في الكون إلا ولي علم بها يهديني إلى صراط ربنا الصوي ولصراط المصطفى النبي صراط شيخي أحمد الولي وأرس أفضل بني لوي وكل ذا في حذك الحصين شيخ المصائق العذيب الشعري سنق بنينا أنا ومن يما إلي ياتينا يا ربنا ومن إلي يدينا سريا بصلنا أو كل من أحبني أو أحسنا إلي يوما خفية أو علنا كذا شريف حبنا الكرزازي ذو العلم والصلاح والإعزاز بلغنا الله وإياهم إلى زر المنى في الختم مركز العلا ثم صلاة ربنا الفتاح على النبي الفاتح المفتاح وآله الغر والصحب الرضا ثم على الخاتم أكبر رضا آمين يا ربي وحاشا أن ترد كفدرات لجودك قدمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا بسلنا آياتو قبل وآياته معه آياته بعده آياتو آياتي يا رسول الله آياته قبله آياته معه آياته بعده آيات آياتي آياته قبله نيب ديف ني ñu magal سيدنا محمد بعده آياته بعده آيات أبو آدم أما سامي وصلي به إلى ربي هي مقبولة توبتي مال الفؤاد ولا بدري جنات غوث أنامي خوب المريات وسلم دائمين على حبيب حبيبك المصطفى حقيقة ابننا يا رب سلع للم دائمين على حبيبك المصطفى فكنز عقيقاتي واو ندسان ندسان يا ما يدون يا ربي سلوا سلم دائمين على حبيبك المصطفى فكنز العقيقة سبي نفلني والله وما ضر خير ديني غيبة ومن بعد إكمالي هي رب ديانا لا لا لا يا رب سلوا نفل نجي ما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم إني على حبيبك المصطفى كنز العقيقة سيري يا عباس وين ينن قامت بنباتي صديق بعد والكرة ما أصحابه أمر نازوا فتوحا لا لا لا لا يا رب سلم وسلم دائمين على حبيبك المصطفى فكنز العقيقة سيري يا عباس وين ينزل سيري وجد قوامه ما وجد من ريدة الناس أعرابي البضاوات لا لا يا ربي صلي كنت يا لنك زيارة سيدنا محمد العين على حبيبك المصطفى فكنز العقيقة قيسر فرصة لنا قوة العزم بعد من شجاعته كديخم الغيب هيبة من قطيعة يا رسول الله يا رب صلوا وسلم دائمين على حبيبك المصطفى كنز الحقيقة باي سخنا جاينا لانا بنصرتي ينتي بغور ينتي بغور التي هي قوة أقناهم فأدوا بالوجوب لا إله إلا الله يا رب صل باي سيرين سيرين سالم فهما دائما باي سيرين عبد الفتاح سالم مفهمة باي سيرين عبد العزيز فكنز العقيقة ما أبسنا لا نصرة مولانا بسولته وأخناهم فعدوا بالوجوب لا إله إلا الله يا رب صل وسلم دائما على سوتا وسطى فكنز العقيقات سيري عباس سالنا رضي الله تعالى عنه شيخ سيدي احمد التيجاني شريف شيخ سيدي احمد التيجاني شريف شيخ سيدي احمد التيجاني شريف كن برم طريقه سيري عباس نانكو نعم. آه. فلباب جودك ينتهي إعمال ندوي الهموم وتنتهي الآمال وبقدر جاء لا سواك ينال ممن له ينمى علا وكمال سيصير أحمد تيجان رضي الله تعالى عنه وبما باستمداد كل مقرب وبه الرجال ببابكم أطفال سوا جنين أكن برم طريق بي الله تعالى سريا باسالني نسيق سيد أحمد التيجاني شريف وبما باستمداد كل مقرب وبه الرجال ببابكم أطفال نرجو بلوغ معارب هدت بيا من القوى وتراكم الأصغال يا شيخنا قطب الوجود ونوره يا أحمد التجاني يا مفضال شيخ سيدي أحمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه شيخ سيدي أحمد التجاني شريف سيدي عباس يا قد, قد أه، أه. يا غوث يا قياسنا داق المذاهب والتوى الأحوال فتما بخور حوائجي وتلاتمت أمواجها وتواتوى الأوجال لا بد للمولى الكريم شكايتي فلكم لنا من عنده الإفضال وهو اللطيف بأبده وعبيد حضرتي لأنتم من عليك عيال Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Serigne Abbas ne ma bigal xamaamu wa mal xamaamu siwaakumoo yastanfiru l ulamaa wal juwaal maa aba mustasqin بكم إلا له ري الصدى وبك انتفل إمحال يا ربي صلي وسلم دائمين على حبيبك المصطفى كنت الحق سر عباسنا يا ربي صلي كنت صفيا نتيني حبيبك المصطفى مصطفى سبب عباسنا وارضى بأكبر صلى الله عليه وسلم يعادل صلى الله عليه وسلم ما وحناك خدرا عني يا رب صل يا رب صل صلي وسلم دائما على حبيبك المصطفى أجد فلن في لقهنا هنا, هنا هنا وهناك خدرا عيني يا تجاري العباس هنا هنا هنا هناك خدرا عيني تجاري الله هناك أني خضر تيجاني يا الله محبا صلى وخ لولو تا شيخ سيد احمد تيجان شريف دام وخو يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم تاي نك سن تاكوسان يونت الله محمد ني جيغلل كوكو مام عباس صلى غا خامني bisam bi nga xam ni tey la am fanweeri at ci suuf moom Mame Abass Sall 1990 la génnoon àdduna ba 2020 ñu koy ñu ci ndokkeel euh, képp koo xamante si ni ngi sëtam nga wala ngay doomam du ci ndokkee Serigne Mansour Sall di xalifa bi ñaanal ko yàlla yàlla dollee guddal fanam mooy ko wér ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye euh, imaam Abdallahi Sall nuyu ko bu baax moom it ziar koo wax dëgg yàlla di suñu baayu xarit di sunu bàyyi soppe nga xam ne Abbas Sall moomu ba nu yàgg depuis lycée Lamine ba léegi ca UGED nga xam ni wax dëgg yàlla euh, kenn du moom ca euh, daayira UGED boobu nga xam ni wax dëgg yàlla yàgg naa taxawee diine moom Abbas Sall boobu di sëtu Abbas ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar soxna maam Fama Sall Abbas di soxna su tedd su baax nuyu ko bu baax ziar ko euh, ñaan ñaan yàlla yàlla def jàmm ca famille boobu ci barke yonti bi Serigne Chérif sàll tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. waaw di ko ziar bu baax ak waa kër Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yi nga xam ni mooy waa waa waa waa kër Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yi ci zawiya euh, fii ci Kawsara ci deux voies yi nuyu leen bu baax ñaanal leen ñaan yàlla Serigne Habib Ahmad Sall nuyu ko bu baax ñaanal ko Imam Lamine sàll bu Louga tamit wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ci njaboot gi lan nuyu leen bu baax ziar leen Abdou Fatah sàll waaw nuyu ko nga xam ni kooku sa soppe la waaw sa xarit la donte waa kër tabaarakallaahu kër gi yëpp say soppe lan mi ngi noonu mbokk yi ñu dëgg Cheikh Mar fi mu génn ci yoon ci yàlla Muhammad yaakaar naa ne xol yëpp tooy na képp koo xamante ni yaa ngi seetaan télévision bi bëgg nga ci yoon ci yàlla Muhammad mbaa ngay déglu rajo bi moo xam yaa ngi ci Facebook bi wala nga nekk ci YouTube bi wala nga nekk ci diaspora bi tey ñëpp a bëgg xam naa incha allah ci kanam bu ñu dugalee oustaz Modou Kama mu wax ci yoon ci yàlla Muhammad dinañ ubbi ligne bi ubbi téléphone bi yaakaar naa ne ñu bëgg a dugg participe ci émission bi bari na du jeex du xaaj waaw du nuyu sama xarit bu baax oustaz Dieye tabarakallahu Ahmed Fall Dieye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu soppe boobu suñu xarit Ahmed Fall Dieye ziar ko bu baax ñaanal ko yàlla moom it yàlla defal ko jàmm jàmbaar la moom Ahmed Fall Dieye nuyu ko bu baax ziar ko ah tabarakallahu Oustaz Modou Kama xam naa ni li naan ku ku ku guddee yaakaar naa ni loo daw da koy xeb parce que yaakaar na bi lii xaw yéex commencé touti waye tabarakallah lépp yiw la Cheikh Cheikh Ahmada Tidiane Sy Maktoum neena lu yéex rek yiw la waye ni lako yàlla beugé nga gis fi Abbas génn ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikh Mar fi mu génn ci yonent yàlla Muhammad nga xam ni way na yonent bi way wu neex wu teggine wu dal nga xam ni day dugg ci xol fa tabaarakallaahu Cheikh Mar ñaanal ko yàlla na yàlla guddal fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Modou Kama yaa ngi gis fi Abbas daanele léegi ci yonent bi la jógee waaye daaneel ci Cheikhuna Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ndax maa lanaa fil kawni siwa rahmaani wal Mustafa wa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ñu bàyyi la ko nuyoo tabaarakallaahu ñu dugg ci aoudu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكمل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صاحب الختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه وحمال سره من الإنس والجان أه، سرين مصطفى لي نيو تباتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دي جاري تي سجم جي غير نيو نيغا خمني نيوم نيوي كليفاي كيرغي di kër Sidi Xaaj Malik radiallahu taala di këru mag ñu baax ñépp di am mbégte ak kontaante ci tàkkusaanu yonent bi sallallahu alayhi ñu woo ci soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñi mhm. nga xam ne ñépp ay soppe yonent bi lañ sallallahu alayhi wa dama may tuuti rek mhm. ma nuyoo حضرة بغا خمنا فلا جوغيت موي حضر سيرين عباس رضي الله تعالى عنه تي الخليفة خليفه محمد بن منصور واي دي نيو كليفه ديني تي ريومي ييب شيخ سيد الحاج مالك سونو كير مام سونو كير سيرين دي نيو خليفه بي اك ني توپ تي غناوم ييب دي نيو خلفاء ييغا خمنا ньо نيك تي الله yonent bi nak sallallahu alayhi wa sallam suñu ko tuddé comme li nga wax seigne Moustapha mom la ñëpp euh tariqa bu nek ka ca nek yonent rek la doon way mom la doon tag mom la doon wone ay mbiram wone yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ak tasawuf ñom ñoo ànd ñoo juddondo bi tasawuf amé rek te ñom dañ leen xamé sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la am ay boroomi xam-xam yoo xam ne ci géew tasawuf la ñu bokk ñoo fent nag tagg yonent bi salaay salaam lu jiitu loolu li amoon mooy eh, xare am ñuy bàkk yonent bi di wone ak njàmbaaram ak di wane ne am na ñu taxaw ci gannaawam di ko aar ba kenn du ko laal loolu moo amoon moom la ñoom Xasaan doon def Abdullah ibn Rawaha ak gaa yooyu waaye nag di tagg yonent bi ngir wane sa cofeel ci moom rek ak di wone ak njàmbaaram ak jaar-jaaram yu rafet mhm. aki xeexam loolu nag mi ngi tàmbalee ak judduwaayu tasawuf ak mbir moomu ñoo ànd juddoondoo ña ca gënoon feeñ nag ca jamono ja mbir ma door a xew mooy eh, ñoom Busayri mhm. ak eh, ñeneen Shaabu Zarif ak ay nit tasawuf ñëpp ay niti tasawuf lañ yoo xam ne Ibnul Farid ak ñeneen ak ñeneen mhm. loola nag mooy rot di rogalaat ba agsi ci sunu réew mi waaye nag ñoom dañ cee bay waaru rëy rëy rëy booy xool ci wàll tagg yonent bi salaay salaam dangay gis ne réew mi cër bi mu ci am ak magam yi xuus gi ñu xuus ci géew boobu eh, wala géej googu xuus giñ ci xuus néew na nga gis meneen réew mag ya di xuuse noonu ci yonent bi salaay salaam loolu nag eh, njaboote gi ñu njaboote ci gannaaw Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dara la ci Chérif radhiyallahu taala anhu ndax moom ku ko xam wala nga lire len ci téeréem jawahirul maani yu mel non xol sop gim sop yonenti bi wa kërëm da nga xam ne du azar njabotam gi ak ñi top ci gannaam ñep botu seen lepp di yonenti bi alayhi wasallam di tag yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu jeex e, nonu nak la ko ñépp di waye nga xam ne mag ñi koo ci jël ay wayam rek da ngay gis ne yonenti bi la alayhi wasallam ba mu jeex Eh, sunu sëriñ bii nga xam ne moom moom moom la génnuk àdduna am tombeek bisub tey bi mhm. moom nag mu bokk ca ña gën a siiw gën a bari gën a neex aw taggin wu ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, tagg ko ci façon yu nekk waaye mhm. tagg yi nag ami leer am yu ko tax a jóg xasiida bu nekk buñ lay wax li tax xasiida bi am dangay xam dëggi dëggi leer yi nga xam ne moo nekk ci biir nga xam ne du ay baati kese du ay mufradaat yu ñu tarkib rek waaye leer moo nekk ci biir la yëngal xasida ba yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam danañ ci junj benn rek mooy raaya bi nga xam ne moom la sëñ Cheikh Mar di yëkkati léegi ñi ngi nuyu sëñ Omar mi nga xam ne moom mooy euh, kilifa ëtt bi mooy DG bi mm-hmm. maamam soxna la ci sëñ Abbas radiallahu taala anhu muy soxna Rama Jaañ soxna Rama Jaañ dafa feebar benn bés moom mooy way juru jigéen wu xalifa bi ak ñoom seen Chérif Mouhamed El Habib ñi nga xam ne ñoom la seen Cheikh Mar doon wax léegi soxna maam Faama allahu akbar mu feebar feebar bu metti boo xam ne docteur yi fu ñu dem dañuy am problème li dal soxna si lana sëñ Abbas am cig njaaxle waxtaan ci ak shérif bu ñuy wax shérif Tahar wali wu am kashfu bari na lum xabaar sëñ Abbas ci mbir yuy bëgg a ñëw ngi gëla ñuy dem di ko ziyaare sax moom shérif Tahar mooy sabab bi allahu akbar nag ne ko feebar bi soxna si feebar yonent bi sallallahu alayhi wa nee na boo ko taggee soxna si wér allahu akbar soxna Ramadiagne moom waaw soxna Raba Diagne mii feebar bi mu feebar. moo bokk ak soxna Zeynabu Diagne. soxna Zeynabu Diagne ma ngoog. Mhm. Eh, mu ne ko boo koy tagg muy feebar muy muy wér ci saasi. allahu yonent bi moom moo wax loolu. léegi nag li ñu bari dul seetlu mooy lan moo tax. soxna Rama bu feebaree ku tagg yonent bi mu wér moom tamit am na cër bu mu am ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam am cër ci yonent bi mooy tax yonent bi faale la faale gu toll ne nañ ma bégal bu ma bégee rek sama sopp bi feebar feebar bi dana dañ wallaahi sëñ abbas nag daati sapp xalimaam rek daal ne laka alhamdu yaa dal arshi hamdan ala qadra allahu akbar way yonent bi salaa sallam ci baxru baxru bu ñuy wax baxru tawil yi gën a jafe way mu way ca raaya boo xam ne kaamil la maanaam mat sëkk ci tafaayil yi comme niñ koy waxee waye ñetti téméré way beuyit ak fanweer ak ben moy qasida gi lolu mom la tag yonenti bi bis bi paré bis bobu la soxla ci wér la ilaha illa allah dafa tombe khasda ma abduma inna marhan nabi ghayru ilajin ngok alijuni bihi fa fihi shifa lolu nak kon dalay wonne mag ñi seen wax mhm. du wax wi may man waykat laa mën naa tarkib ay ab bayit mhm. wala ma way fi léegi fii ma toog nii ay ab xasida mhm. waaye loolu est-ce que dana am leer du am leer leer gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi di digal nit pour tagg ma la nga koy taggee loolu du ay waxi kese moo tax sëñ alaaji abdou daana wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu xasida gi fanaan moy tuur yonent bi fanaan na fa ndax fa muy jóge ak lay yëngal waxkat bi ba mu wax daf caa wax nag yu ama am solo ci biir mm-hmm. dund yonent bi avant juddoom bi mu juddoo eh, ni mu màggee ak fi nga xam ne mag ñi jaaroon nañ fi ca xilaas ak yëpp ba ba noonu noonu la ko noonu la ko eh, kiiwee xam naa Cheikh Mar dañ ci yëkkati mm-hmm. eh, mu xam le yonent bi salaa ay jikkoom fa xayri mm-hmm. والآيات والخيل جاءه من الخلق أفواج فيحسبهم بالراء صلى الله عليه وسلم لك الحمد يا ذا العين حمدا على خضراء الله تعالى عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم فبالخير والآيات والخيل دافا نروك واخو ماك فبخيله وبخيله جلب الورى جلب الورى ولمن اجابوه ميل خير مرام من سي اباس تنكات فبالخير اي خيول يوم دفال اكي ترانغا يوم دفال نيت موم صلى الله عليه الله عليه وسلم jaahu min alxalqi afwaajun ci la aw nit riiree ñëw topp ko xam ne li muy woote dëgg la waaye wa bil aayaati ay kéemaan yoo xam ne def na ko ñu xam ne lii nit kese mënu koo def ñu xam ne kii yonent la mu ayyadun min indillaahi ñu riir topp ko waaye wal xayli am na ñoo xam ne lànk nañ nag mu ngalaab aw fasam daw topp leen nag xeex am ba ñooña mën a wëlbatiku fa bil xayri والآيات والخيل جاءه من الخلق أفواج بني نيوي نك يونتي صلى الله عليه وسلم فيحسبهم بالرام خب لين خيول لا اله الا الله سيدنا محمد في اليوم فإن قلت جود الخيس جود يميني وفي كرم الاخلاق شبثوا بحرا سي عباس ني يونتي صلى الله عليه وسلم نك موم منيسوكو مثالال دارا مانام nga tek dara ne yonent nangam lay nuron fa in qulta jawdul xaysi juudu yaminihi su fekkee ne danga wax ne taw waame hmm. day tolloog eh, tabug yonent bi salaay salaam wax nga lu tuutal nga tabug yonent bi salaay salaam wa fi karamil axlaaqi shabbahtahu baxraa hmm. su fekkee ne danga nga ne eh, ay jikkoom yu rafet moom yonent bi salaay salaam dafa bari ba mel ne géej hmm. ni muy duusoo tuutal nga jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkee ne wax nga ne yonent bi sallallahu alayhi ci rafet dafa mel ne weer tuutal nga rafetaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ su fekkee ne da ne yonent bi ci leer ci nañ naññi gi muy naan tëll nga xam ne bu ne tëll leer naññi nga ne lii daal comme jant diggu bëccëg tuutal nga leeraayu kanamu yonent bi salaay salaam. sayyiduna Muhammad wa fiihi min su fekkee ne da nga ne yonent bi ci yitte adduna la tuutal nga yitte yonent bi salaay salaam. Sëriñ Abbas nee na wa fi tarafin zahra su fekkee ne ci rafet danga ne yonent bi comme fleur tuutal nga rafetaayu yonent bi. wa fi xilmi tawda su fekkee ne yonent bi da nga ne ci lewet. dafa mel ne ab montagne nga xam ne montagne moom loo ci rëkk-rëkk wala nga mbëkk mbëkk yow yaay arrière waaye montagne moom lewet la def ne doom boo nee yonent bi ci lewet dafa mel ne montagne lewetu yonent bi tuutal nga ko bu fekkee ne danga nga ne yonent bi li haybatihi tëy gi mu am personnalité gi dafa mel ne gaynde ak nga tëyugu yonent bi salaay salaam aw da nga ne bi ci kersa gu mu am dafa mel ne jigéen ju amagul jëkkër kersa gi muy am tuutal nga kersa gi yonent bi salaay salaam wa su fekkee ne lay feeñ su yonent bi reewee lay feeñ ca biir bëñ ya da nga ne loola or la boo nee or la tuutal nga lay feeñ ca biir sayyiduna muhammad sëriñ baax nee na wa min riqihi shuhudan su fekkee ne danga ne yonent bi aw loram tëflit yi dafa mel ne eh, eh, lem tuutal nga loru yonent bi salaay salaam. Sina na wamam si biir dura. su fekkee ne da nga ne yonent bi su muuñee. Mhm. bëñ ya dafay leer xet ba mel ne wurus. tuutal nga bëñu yonent bi salaay salaam. Sina Muhammad Sina Abbas nee na fama antamil mu jibi. kon nag yow xamal ne. Mhm. yonent bi moom mënu indi. min sifaatihi saniyaat yi. فما أنت بالمجدي الله أكبر يوم إندل تيون أنت صلى الله عليه وسلم من صفاته السنيات تجيكم يرفدي موم يننت ياني ملنا دال إلا من بحار العلا جيج قبري لول nga tank ci ab benn pepp pepp ndox lii mooy li nga waxagun ci yonent bi yëpp la des mooy lañu xamul ci yonent sallallahu alayhi wa sallam سريا بسنا فلم تخلي في ذكر الغزالة كناية مانام رفتا يو كيول وخينو عرب منوكو بيك موم داغي داغي واخ با سون رك ام لو بايي لو باري باري انا صافي صدق فيه من شدوي سبرا مانام لولو دخول خصب تي رفتا يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم سريا بسنا يوري عيسى يونتي بي تي ليرايم بس غودي دا فا جوت مونيتل fekk Aïcha radiyallahu anha di wër lu ko réer ci guddi gi ci lëndëm gi waaye mënu koo gis te làmp amul yonent dugg ci kër gi ne tay kanam gi leer mu gis puso bi nga xam ne moo wadd ci suuf ci digg guddi gi yuri Aïcha fi leyli ibrata zulmatin ah. moo tax Aïcha waaru yéemu daati way nag sëriñ <laughs> Abbas ne yuri Aïcha laylan في الليل إبرة ظلمة وقالت له مما ترى عجبا شئرا جل عائشة نوح نياري بيت حسانية مويلا وأجملا وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد نساء وأجمل منك رقة عين والله وأكمل فيه كلمة الدين نسائي ووالله خلقت مبرعا من كل عيب والله كأنك خير خلقت كما تشاء وأجمل من كلام فرقت sëñ Abbas wa ajmala minka loolu rek wa ajmala minka mais mag ñi daal oh. albayta wa ajmala minka mhm. eggaleel bayit bi wa ajmala minka albayta lillahi darwa bayit yooyu nag nga xam ne Aïcha wax na ko nag ak waxam ju rafet jooju mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëñ Abbas di yéemu nag. Fama xafalat am waqtihi yàlla shi'ra ci circonstance boobu Aïcha nekkoon ba yonent bi fekk ko noonu kanam gu leere noonu faaw mu wax ci bayit mënu ko woon a weesu. sëriñ Abbas nee na fasal. fasal anhu xasaan al madaaixi. fasal anhu xasaan al madaaixi لما قال لكن لم يكن يقدر النظرة حسان مودا قنا وي يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ كوي واي كين رك دلي تودي ياي حسان ديو موتاخ بدي ني نان حسان طريقي طريق شيخنا احمد تجاني موم مودون سين حسان حسان يونتي صلى الله عليه وسلم نك لام واخ تي يونتي با ييب جابال ني خمول يونتي بي نك صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. sëriñ Abbas nee na amil ay nay si min jamaali mu ne bu ma bëggee misaal man sëñ Abbas bu ma bëggee misaal xasaan ak yonent bi damay misaal nit koo xam ne dañoo jëlub dërëm wala benn pièce xëcc ko ba mu jege bët yi ne ko léegi expliquer ñu pièce bi nu mu mel. allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi ay leeram dafa dafa dafa dafa dafa euh, daj ki ki koy xool. بكوكو اي بتم منول جاكارو يونتي بي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيع تكميل ما يبتغي نظرا موتاخ دو مانا اغالي ساب خول والله دو فكنا جنت بي دفنا دان داغا سغ والله ندسان صلى الله عليه وسلم كشمس تشكل الطرف من ناظر الله من ناظر الله وما بلغت من حسن رون رونقه عصرا يونتي بي دفنا لا جنت جنت موم دانا لوتال كوكو بغا خول فيكسيكو waaye jant rafetul yonent dàq jant foofu nag moo tax jant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Abbas nee na fa ansata shi'ran yusmi'u summa aw yuri li akma li akma awsaafan li tal'atil gharra kon foofu liñ bëggoon a leeral foofu ci yonent bi salaay salaam rek mooy sëñ Abbas li muy wax ci yonent bi salaay salaam loolu wax la ci zaahir leer la ci baatin ndax ci ndigalal yonent bi salaay salaam la taggee yonent bi salaay salaam taaiya bi sëñ Cheikh Mar ibbee sëñ Abbas wax na sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Gaye radiallahu taala anhu ne ko man bi may taalif booy taalif da ngay dem nga seeti téere yi lu ñu wax ci yonent bi nga jël loolu jéem ko way loolu la waykat di def mu ne ko man nag bi may way yonent bi ci taaiya benn téere bu ñuy wax achamailul muhammadiya rek la lire pour xol jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye li ci dess lépp jëmm ngi taxaw di wax wala jëmmay taxaw may xool di expliquer li may wax jëmmay taxaw di wax may dégg li muy wax mu may ilham li nga xam ne la loolu moo dal sëñ Abbas ci yonent bi moo dal ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane taaba fi taabatin bi tafshasa madhi xaamidan ahmadan lahu l sëñ Abbas daf ne man lu ma wax Cheikh. Mhm. Cheikh ma ko wax ma wax ko ko. waaye lu ma tagg yonent bi itam ci moom la jóge ma delloo ko ko. sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu da ngaa wax ci sayyiduna Muhammad léegi sallallahu alayhi wa sallam. nga gis mag ñi ñuy taggee yonent yàlla Muhammad dafa mel ni ku ñu si ces ca xarima di wax ci sayyiduna Muhammad rek day mel ni da da ngay déggoo ki nga koy waxal. Mm. bax ba sëñ Abbas Sall li mu wax ci taaru yonent yàlla Muhammad مام منصور من واسو محمد أجمل من في الكون خلقا وخلقا وشيم خير النبي للإنس والجن يوم dafa mel ni yonent bi moom dafa dem ba subhanahu wa taala ni ko bindee ko bindee ma ni ma neexee ni ma neexee te da nga ni jant bi boo ko boo ko tëkkaleeg yonent bi rek xeeb nga yonent bi. yonent loo ko tëkkaleel xeeb ko loo ko tëkkaleel xeeb ko. kon taaram moom ci lan bu ko mën a tënk moom yonent yàlla Muhammad. taaram googu nag faaw nga may ñu ci dara jamaalu zahir yi. Serigne Abass Sall mu ne yonent bi salaay salaam taarug bitteem. Mm-hmm. yaramam ni mu taaroo. yubdi li nazri képp ku ko xool. taarug bitti bi da dana am lu la woon lan la lay woon سريا بهننا جمال ظاهره يبدي لناظره على بواطنه يبدي بناظره على بواطنه اقوى الدلالات بنس ينتبه صلى الله عليه وسلم بيتيم بوكو خولي داف لاي خمال تارك لبيرو تي موم بيتي بي رك مولاي وني بيرغ كين خمول نو ميل تي رافيت لا اله الا الله خول با لير ياي جولي تي موم صلى الله عليه وسلم ذات البهن درجة ذات البهن درجة أكتار تار تي بوبم بوتي moo ñëw dëxëñu ci biir yonent bi salaay salaam fii daati ab taar moo ñëw dëxëñu ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi est-ce que am na lu mën a taarooti déedéet gisuma taaru loo taaru taaru boora daa sayyidina Muhammad ne kon lépp loo fi gisati mu taaru ci taaru yonent bi lañ ko tànqalee boo koy gis nag moom yonent rabaata xaddi day digg doomoo am yaram baadinan wasata diggu nag moom yonent bi salaay salaam maa tuuli qaamaat diggante gàttaay bu yam oh. ak njoolaay bu ëpp njoolul gàtt sayyiduna muhammad tara muhayya boo xoolee kanam gi nag moom yonent bi sëñ Abbas nee dangay ngay gis kanam gi mis la mis la samti saaxiyatan mu mel ni ak jant nag ci digg njolloor nag wa faqaha waaye nag mu dàq jant nag lan la ko dàqee mooy jamaal ndax jant moom jalaal la ak tàngoor moo nekk ci moom sayyidina Muhammad da ngay gis yonent bi sax moo gën a raglu nag moo gën a tëy am personnalité min lay si ci gaynde gi nga xamne moy mooy gaynde yi gaynde yi isa wajjahtahu baathiman al masarat waye yonent bi non nga ko gisee nag nga xamne ne ko xol lam xasaan don wax na yughdi hayaan wa yughda min mahabatihi fala yukallamu illa xiina yabtasimu loolu mooy yonent bi salaay salaam sëñ Abbas ne yonent dafa am personnalité kenn mënu koo fixé wala nga xool ko yeb ko déedéet waaye nag ragal ragluwul doo دوكو غيس دي داو ki nga gis dafa ñaaw déedéet da nga koy gis baasi man baadil masarraat muy boromi muuñ di wone ak mbégte ak kontaate ñépp a ko ñeme waaye kenn ñemewu ko tabaaraka ko jàkk ñeme ko tabaaraka taraahu bi day muuñ nag lan lay muuñee an kadurri faiqi day muuñee ay bëñ waaye bëñ yi nag mi ngi mel mi ngi mel ne mi ngi mel ne or waaye faa faa effet yi moo raw oor nag. Oh. sallallahu alayhi wa sallam. ngay gis yonent. abyad lawnin. yonent bi dafa xaw a xeereer weex. masruban lahijan mu rax nag ak xonqaay. bi xumratin duuna badrul ahilla. yonent weer wi ci digg matam. àggul ci leeraayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oh. sayyidina Muhammad sëriñ Abbas ne taraayu dañuy gis yonent doon wax yonent dafa fees bëti ñu koy xool saaba yi dañ daan wax ne yow noo xamee yonent bi loo ñu mën a wax ci moom ah yonent musuñoo feesal suñ bët ci moom ba mën koo wax cest à suñ ne koo jàkk rek faaw ñu sëggaat. Oh. wala kanaadir shams xool jant fixé ko moo gën a yomb nga xool yonent bi salaay salaam. sëriñ baax nag di ree nag dangay gis ay melxati nag. min anwaari tabruqu min bayni sanaaya ay melxati leer ay leer nag ngay gis muy melxati nag ci biir gémmiñ gi ak ci diggante bëñ yi. sallallahu alayhi wa sallam. sëriñ Abbas neen atara muhaakaata judraanin tuwaajihu fii. yeneen ti xatay lillahi wajhul muslimir aat. seetu la leeraayu kanamam. Mhm. setaayu kanam gi. nit mën naa tiim yonent bi seetu ci kanamu yonent bi salaay salaam. taralaw shara. yonent bi nag nan la karaw gi mel sëñ Abbas ne karaw gi nag dafa maasey liis nag. rajlan walimatuha karaw gi nag lan lañ ko mën a misaalee ci gàncax minal jinaani famin abhat nabata su dee gàncaxi àjjana ya nag yooyu moom mën nañ koo jël misaale ko waaye geneen gàncax duñ ko nangu sayyidina muhammad asad ju ahdamu yonent daa yaatu tus ngalu ay bët ak naa gaana per yi ñaar ñaari peru bët yi dafa ndobinu dafa weex dafa li war a weex dafa weex taal li war a ñuul dafa ñuul ko mhm. sëriñ Bass nee na abaabu fan aju asnaasi bariqaati yenent bi ku sori ay bëñ la ku mën a ree la ree gu rafet te neex yenent bi wa an jalum yaatu tus yaatu ay bët nag أكحل العين عزاء داجل آه، برم برمي بيت يلير نان يلا مم يلا تبي سلام وضعف من واسع باب الفصاحة لير أي كارد ولا مم يلا تبي سلام تبارك الله آه شيخ مار يا كرناني خلي بفيخ نتي يوم تيالله محمد صلى الله عليه وسلم سنجو بتد بتد بدنة منورة غا خمني والله يا ياسين مثلك لم يكن yonent bi doo gis ku ko gën a taaru mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ni képp koo xamante si nii yaa ngi ñuy seetaan fa nga toog tey sa xol sedd na rawatina sunu waa kër maam Abbas Sall yooyu nga xam ne ñoom lan jagleel bis bu tedd bi mhm. euh, Cheikh am na way yoo xamante ni nit ñi ngi koy xaar ci yow ñëwagun te xam naa ne way yooyu ci kàttanu yàlla insha allahu taala dëgg ci ñëw des na tamit benn bayit ci mimi maam Cheikh Alhaaj Malick ndax tàkkusaan yonent yàlla Muhammad xam naa ni mhm. insha allahu taala li nga wax ci Seydina Muhammad sunu way juróo wax ko sunu maam Abbas Sall tagg yonti yàlla Muhammad nga xam ne mag ñi lépp lépp lépp seen lépp yonti yàlla Muhammad la li naan li ma wax sànq ca commencement ba dihi naa la maa naa la rijalun maratiban min al malik al allaami jallat an il hasiri yaakaar naa ni képp koo xamante ni sopp nga yonti yàlla Muhammad bëgg ngaa àgg ci moom fa góor yàlla yi jaar yépp ñi ngi jaar ci ëttu yont yàlla muhammad ci yonent bi lañ jaar ba am lu ñu am ñu ci ziar bu baax euh, tabarakallahu euh, soppi sayduna muhammad yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ku mel ni soxna euh, soxna sunu yaay Adja Ndumbe Fall ca ñaari tali wax dëgg yàlla ku sopp yont yàlla muhammad la mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax ak Adama Guèye madame Guèye tabarakallahu Kodumar ñu ngi koy nuyu bu baax di ko mm-hmm. ziar moom it wax dëgg yàlla sopp yont yàlla mu ngi suivre émission bi bu baax a baax ak Adja Rama fii ci Nord Foire ñoom ñu ngi suivre émission bi bu baax a baax a baax madame Ndoye Adama Mar tamit wax dëgg yàlla ñoom it kenn demu ñu des ñu ngi suivre émission bi bu baax a baax mi ngi noonu sop euh, say euh, tàkkusaan yonent yàlla Muhammad xam naa léegi dinañ euh, réseau dina ubbi ligne bi mm-hmm. insha allahu 88 628 00 78 am ñàkkul am na ñoo xamante ni bëgg nañoo participer ci émission tàkkusaan yonent yàlla Muhammad bi ñu ubbi leen ligne bi insha allahu képp koo xamante si bëgg nga cee participer ñu wax Mouhamad Ndoye turandoo Seydouna Mouhamad Seydina Omar Dia nekk ci régie bi Moussa Pam Moussa xaritu xalifa bi xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour Pam Moussa Diop nga xam ne moo nekk ci caméra bi nga xam ne xaritu xalifa bi la Serigne Babacar Sy Mansour ñu ngi koy nuyu bu baax moom wax dëgg yàlla di ko bégee waaw bu ñu régie bu amee ku fa ne bu bu amee kenn ku nekk ci ligne bi rek incha allah ñu jël ko waaye balaa ñuy jël ñu nekk ci ligne bi fi nga toll ci yoon ci yàlla Muhammad Cheikh Mar am lu mu war wax loo xamante ne way woo xamante ne ni ñaa ngi koy xaar ci moom balaa Cheikh Mara kii balaa Cheikh Mara jël foofu ma am nga toll ci yoon ci yàlla Muhammad dafa am solo tabarakallah mhm. eh, lu ñu mënoon a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li ci sëñ Abbas wax xëy na mhm. loolu xajul ci ab émission wala yu mel noonu ndax benn xasida sëñ Abbas rek lañ cay dëxëñ ci ay wax dafay bari lool te sëñ Abbas dafa siiwee tagg yonent bi sallallahu alayhi ni ki mu siiwee ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala noonu la mel ci yonent bi salaay salaam. balaa cheikh a dugg ci cheikh Sidi Ahmed Tidiane rek sunu serigne euh ñu wax quelques bayit rek yo xamne ne Abbas wax nako ci biiri wayam wax fi mu tollu ci yonentibi bi salaay salaam sallallahu alayhi wasallam wax ne fasul yene way kenen ko dul yonentibi sallallahu alayhi wasallam wallahi mo jara way de. sanaytu inaani an siwa madhi ahmadin thara na'lihi yahnu lahu lmutathabitu manam mu ne yonent bi salaay salaam sama goum gi may dawal ngelaw dama koo wëlbati jëme ko ci keneen ku dul yonent bi moom jëw ma ci yow ci yonent bi rek laa jëmee sama tagg wallaahi salaay salaam ndax yonent bi pëndug dàllam rek mhm. jar na daw ba dee sallallahu alayhi wa sallam mu ne jaaltu lahu qalbi mihaadan wa qaala bi jihaaran xadiman fi rawaaxi wa mudlaji mm. mu ne yonent bi salaay salaam man sëñ Abbas sama xol ak tëraay la maanaam lal la boo xam ne yonent képp moo fay tëdd waaye sama bitti sama yaram yonent rek lay liggéeyal muy guddi di bëccëg xalawtu bi afkaari bi qalbi wa qaala bi xadiman li xayri alxalqi wa huwa almushayaxu mu ne dama wéet ci samay xalaat di xalaat kenn rek te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag sama xol yonent kese lay bége lay bëgg sama bitti yonent bi salaa sallam kese lay liggéeyal dithaari shiaari mafxari wa tijaarati dawaawiinu madxi nazma dirrin munaddadi mu ne man sama mbubb mi may jiital ak ma may teg ca kaw li may tiitaroo ak sama commerce mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yonent bi bu dee mbubb la moom mooy bi may jiital mooy bi may teg ci kaw mooy sama tiitar موي كوميرس بي ماي لغي دعوا لامتداح المصطفى مدح غيره دواما تفوزوا بالنعيم المؤبد من سما جاي باي لين دي تاغ كينن كودول يونتي بي صلى الله عليه وسلم وورو لولو بولن كو ديفه ديغال لولو بولن كو ديفه اجينا كين دولن فا جيتو والله دغ صلى الله عليه وسلم من نك مان man moom ci wàllu bëgg yonent bi sharibtu mudaama al ishqi faxdara li aysha sharaban tahuran qabla an arifa al ghisha mu ne man dama naan sàngara bëgg yonent bi salaay salaam dama ko naan li gars yi naan secc pot bi secc am naan ko ba mu jeex tàkk ba mànd ca noonu laa ci def bi ma koy def nag di bëgg yonent bi di naan ba daanu boobu triche amagul woon allahu akbar triche amagul bëgg-bëgg lu Mhm. ba bëgg di jot booba laa nanon sangaras bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba daanu ba mandi sabawtu lahu hubban qadiman mutayyaman e, sabiyan wa kahlan e, e, bil muna mutarabbisa oh. mune man dama juddu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di magge non nak motax fi ma toll ci sama magel limay xaar rek moy xewali bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu may si man parena pare nga ghanimati al uzma sama koom-koom gi gën a rëy ci man mooy mooy lan mu ne ar rasulu wa xubbuhu yonent bi jëmmi yonent bi ak bëgg yonent bi loolu mooy sama lépp ganiyan bihi dama doyloo yonent bi salaay salaam rek soxloo ma leneen nimal xabibul muballigu faraidu aynil qalbi faratay jëmmi xol sama xol faratay jëmmam mooy faraidu lil muxtaari madxan tusarrafu manam ay xeeti taggin yu rafet yu neex ma jëmele ko ci yonent bi rek loolu mooy sama faratay jëm ci sama xol qusara wa awla ma yukaffiru ma mada qusuran sanaul mustafa zaaka alyaqu mu ne li nga xam ne moo gën a gaaw ci far bakkar li gën a gaaw ci far bakkar mooy lan sanaul mustafa sallallahu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam moo tax mu ne liyal xiiru xéewal moom maa ko am ci digg mbindeef yépp kañ iz ana xaadimun jamono ba may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi bëgg ko rek nekk ci service am li xayril baraayal mustafa qurratil muqal kooku nag nga xam ne moom mooy sunu bëti xol moom la ñu bëgg ba jeex ci moom kooka nag dafa am xalifaam bu mu fi teg xalifa boobu nag dond yonent bi sallallahu alayhi ci léppam sëñ Abbas viré ji demaat ci kooka lu mu ko wax radiyallahu إلى بدر الدجنات غوث الأنام إلى قطب البريات شريف رضي pour ñu bañ a jóge fii di dem feneen danga may duggal directement rek mala alqalba xubbu Cheikh Tidiane mala alqalba xubbu Cheikh Tidiane sëñ Abbas a ngay waxati nag wallaay na sama xol fees na dell ci bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ملأ القلب حب شيخ التجاني ليس في لغيره من مكان كنين كدول شيخ تي خولبي ام في بن بلاص أه، مودو كما تبارك الله قصد بي دا فنيخ لولو خمنا طالب الشيخ ييبغي أه، تاخير لو داخ بغ جين بغ شيخنا احمد تيان شيري واي تاي سونو مام جوجو سيني عباس سال ا أه، گن نونو شيخنا احمد تيان شريف waaye gën a dugal ci xol yi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mar am na way wu ni xaar bala ngay firi xasida bi da mu koy téel parce que dañ koy siramtal Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu xam naa ne bu nu bu nu bu bu Cheikh Mar duggee ci xasida bi ko ñëpp di xaaree nga xam ne xasida boobu tabarakallahu ñëpp daanaka ñu déglu di ci di ci bànneexu dafa bari waaw waa commissaire central ñu ngi waa central ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla ñu ngi jàkkaarook émission bi di leen seetaan Abbas Abdoul Aziz ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu bu baax waa central yëpp mhm. ak ñoom ajjuma ba nee naa nee naa leen sax dañuy nekk ci circulation bi di déglu asfiya yi ndax ñor gi leen asfiya yi ñor waaw ak Souleymane tabarakallahu ñu nga foofu central ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi bàyyi xel émission bi bu baax a baax a baax ak Adja Kumba Diallo. Mhm. tabaarakallaahu madame jaan si Mbeng moom it wax dëgg yàlla mu ngi suivre euh, euh, takkusaan bi bu baax a baax a baax moom it ñu ngi koy nuyu bu baax. di ko mhm. ziar Cheikh Mar nga dugg ci xasida bi bégal soppe Cheikh na Ahmad Tijaan Chérif yi taalibe Cheikh yi xam naa ne heure bi ñëpp julli nañ takkusaan ba laazim ba pare waaye di jàkkaarloog takkusaan yonent yàlla Muhammad waaye kenn du ñu yonent bi te dooni Cheikh. maa lanaa fil kawni siwa rahmaani wal Mustafa doo cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif nga cay teg radiallahu taala anhu ñu dugg ci cheikh na Ahmad Tidiane Chérif ci ko xasida bu màgg boobu sunu maam ji wax alxaaji sunu maam Abbas Sall tabarakallahu yàlla na yàlla yokku leeram bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam cheikh Mar bi kanarjo xaadan najaatan sitra bi kanarjo xaadan najaatan sitra بك نادى النجاة مسترا خاتم الأولياء لله ترا يا ممد الأقتاب سرا وجارا أنت يا ملجأ العفاة جميعا يا غياس العباد دنيا وأخرى يا شيخ بك نرجو على عدلنا وخلنا بك نرجو غدا نجاة وسترا يا شيخ بك نرجو عدلنا أولين أولين بك نرجو غدا نجاة وسترا باي سني عبد الله صالح أيوا يتم منك الفخر وتي دينا ودينا عم منك العتاء برا وبارا مرأت مقلة ولا سمعت نمر إن في الحياة مثلك فاخرا بك نرجو على النجاة ويسأل الله ذو الجلال أناسا خسهم منك صحبة ما وإسرا من لم يجعلوك إماما وحجابا حسنا ما لا سن وسخرا يلا يلا فايزن يا عباس ايوا بك نرجو غدا نهجاة وسترا أيوة، بك نرجو غدا نهجاة وسترا ويلي تشريئة أنت ترداد لكوني لك يا سيدي وبيد المقرة من يمناك أنا قال الناس واليسر ربها صار عندنا الأسر يسرا بنا نرجو على النجاة حسبي يا بيبي بك نرجو خادم النجاة وسترا بك نرجو على النجاة وسترا واي أنت يا سيدي لقد قيل في ملكك ما قيل لابن داود شكرا أنت يا كريم واسد حبالي فبه أبتغي ما دار زفرا يصبك نرجو على النجاة وستر أيوة أنت شغير غير أختا ومماتا على الحياة بخسرة لك مني مملوء قلبي غراما لم تجد فيه للمشابك شيخ نرجو عادا وبك شيخ الدجال فلمي بك نرجو غدا نجاة وسترا يا شيخ بك نرجو عادا نجاة وسترا أيوة أنت يا سادة الملاذ الأمان بك نرجو سترة حق أبدنا نسؤنا بصيرا مبلغا من سواك فكا وبرا أصحابك نرجو على النجاة وسترا ويتم قلبا إذ حل باب كريم ولي الكون منه نورا وسترا أصحابك نرجو على النجاة يا سيدي أحمد التيجان نرجو على النجاة وسترا أيوة في كربة لخير من سنا بنعمي بجودك حرا يسبك نرجو على النجاة سيصير أحمد الدين نبيك نرجو على النجاة وسترا ربي في حماك ابن عباس صدقه لا يرى الدهر درا سيصير أحمد الدين نبيك نرجو حسن الختام مماتا أمين أمرة الخاتم وغفران آمين وعلى سيد الوجود صلاة ولا صاحب آله الخر ترى بك نرجو على النجاة وسترى بك نرجو على النجاة وسترى بك نرجو على النجاة وسترى بك نرجو على النجاة وسترى بك نرجو على النجاة سري آه، فتبارك الله شيخ مار عباس way wi nga xam ni Euh, cheikh euh, sunu maam Abbas Sall way na ko cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mu nekk way woo xamante ni bu yëngal euh, réew bi la bu ñëpp bëgg la cheikh Mar way wu neex loolu nga xam ni sunu maam jooju woowuñ ko kenn ku dul cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu oustaz Modou Kama maam Abbas Sall boo ñu doon wax ci moom tey ci ci dundam ak ni nga xam ne moom noonu la daan jëflanteeg ñu ko yàlla booleel lan ngeen ciy wax waaw loolu dinañ ci am cawarte mm-hmm. ci waxtaane sëñ Abbas ndax dafa bokk ci nit yàlla yi raar mm-hmm. ci jamono mm-hmm. ndax nit yàlla nag ñun ni ñu ko jàppee léeg day wuuteeg loolu dëgg la waaw day wuuteeg loolu waxal ci yëkkati waaw nit yàlla léegi niñ koy jàppee lu ci bari day wuuteeg loolu ndax nit yàlla mooy ko loo xam ne mu ne su ko canaliser ci ab barab mën nga gis nitu yàlla bu nay ak bu tabe sax ñaar ñëpp ay wali yu lañ yàlla dina nay bu baax a baax waaw sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu mhm. eh, biñ koy tànnloo ci turu yàlla yi mhm. dañuy wax ne yaa baasitu la tànn yaa baasitu ñu ne faaw day maye wallaahi day tànn yaa xaabidu nag boobu de xanaa xanaa xanaa oustaz euh, almuxaddam Babacar yaa xaabi du la tànn xanaa. <laughs> kon nit yàlla yi mooy ñoo xam ne mëneesu leen <laughs> waaye nag ku la nag. wala waaw mëne mëneesu leen tënk ci ci hmm. ak col. Hmm. mëneesu leen a tënk ci ak melokaan mëneesu leen tënk ci dara. Hmm. Eh, nit yàlla itam mën na nekk nit yàlla ba mat sëkk. te du mën a yóbbu kenn te du mën a defar. loolu day am. moo tax Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci Jawahirul Maani nga baal ñu tuuti am noo ku nekk ci ligne bi ñu jël ko xam naa ne ñooñu ñàkkul bëgg nañoo participer ci émission bi xaar jël ko 88 628 salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam allo. soxna si yëkkatil sa kàddu ci kaw bu baax ñu mën la dégg. allo kooku Abdou Aziz Mbaye. Abdou Aziz Mbaye Moustapha la Moustapha Mbaye borom tàkku sàmm na bi. waaw naa def. maa ngi fi rek. ça va. sa waxal ci kaw. allo allo ñu ngi lay dégg. ah du kooku Abdou Aziz Mbaye. déedéet. ah dafa dak xam naa ni Sambel la. dafa waaw ma ne Cheikh Sidi Ahmed waaw Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala ci jawaahir dafay xamle sëriñ bu mat sëriñ bi mën a yóbbu nit ñi ci yàlla mooy kan. noonu nag. xaaral ñu jëlaat ki ne ci ligne bi nga baal ñu tuuti ndax xam naa ni auditeurs yi tamit ñoom wax dëgg yàlla ci leen boobu salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar yëkkati sa kàddu tuuti. nu ñëpp ko. yàlla na yàlla nangu ziar tur bi nan la. ah. bi nan la. man la Bolle Diouf. Bolle. Bolle Diouf Mbilor. ah Bolle Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa yaa ah, ngi Dakar. maa ngi def. alhamdulilah sant ak muñ. jërëjëf ba léegi mënuma ba léegi ma dëgg la. duñ jël prix bi duñ saago fa. Mansour. ko yàlla may xam ne gudd yàlla yàgg di ànd. amiin. allo. ñu ngi lay dégg baax boole waxal ci. ma ne yàlla bi ko jaalee. jërëjëf di daale waaw mi ngi noonu kooku dem na Bolle Diouf mi ngi dëkk Mbilor yaakaar naa Mbilor boo ko tuddee da ngay tudd dëkku xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ndax bu daan dem gaaya daan nekk Mbilor fa la daan yendu ba ngoon mu gàmmul waa Mbilor xëy ñu dem euh, Daaru Salaam ah, gàmmu yeeg féete côté boobu yëpp salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waxal ci kaw. së sëñ ñu ngi lay nuyu bu baax. Mère Faye. allo. allo waa ñu ngi lay dégg. te loo ñu ngi lay ziar bu baax. ay yéen ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. naka waa foofu. tur bi nan la ak fooy wootee. alo alo allo waaw. ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg sëñ bi. Euh, yaakaar naa ni euh, ñi ngi euh, ñi ngi jéggalu bu baax mm-hmm. ñooñu dugg nga xam ni xam naa ni dañuy du déggantewun bu baax a baax mm-hmm. waaye waaw ñi ngi ñaan képp koo xamante si ni dugg nga rek nga wàññ tele bi mbaa nga wàññi rajo bi ngay dégloo te nga wax ci kaw rek ñi ngi leen koy ñaan xam naa ni insha allahu ñu balaa kenn duggaat dama ne sëñ Abbas li Cheikh na Ahmed wax ak ni niti tasawuf fi waxee ne sëriñ bu mat sëriñ noonu lay mel mm-hmm. boo ko doon définir mënul génn ci cadre boobu mm-hmm. eh, mu ganee àdduna ci ay nit yoo xam ne ñu ñu xam lañ ci réew mi ci wilaaya mm-hmm. ci xam-xam ci ragal yàlla ci daan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, baal ñu ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum wa salaam soxna si maa ngi lay ziar baax man la man la sa yaay Adja. allo allo. waaw ñu ngi lay dégg ah yaa Aminata Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax. Mm, maa ngi lay nuyu bu baax. na def ak coon daka waa Kër Massar. déedéet man la sa yaay yaay yaay xoolu président directeur général maam Omar Ndiaye ak maam Khalifa Ndiaye ak Moussa Diop Pape Moussa. <laughs> yaay daaru Habib ak Moussa Moussa Diop Pape Moussa yow ma la jot Pape Moussa. waaw yaay yaa Aminata Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax ca waagu ñaay. man sama man tey léegi sax yaay président directeur général maam Omar Ndiaye sama doomu xol ak maam Khalifa Ababacar Sy Ndiaye. wax nga dëgg dox nga dëgg wax dëgg Dieng. dama leen a yokkal ci bi ndax ndax bàjjen Xadi dëgg la. na ngeen def. ñu ngi fi rek yaa Aminata bu baax. maa ngi kontaan nag ñi nga dalal franchement euh, seen xasida boobu ñaare bi nga koy teg ci biir yëpp macha allah xaw ma lu may wax nag wax dëgg yàlla mais saa bu ngeen ko tegaan ci télé bi daf may neex wallaay ndeysaan Cheikh Mar ndeysaan wallaay waaw xasida bu ma sax la macha allah macha allah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sax bu baax a baax a baax ñu ngi bu baax a baax waaw di ñaanal di la jaale nag li ñu bokk waaw waaw jooju kër eh, Pape Malick si ñuy jooy te noppeeguñu ko yal na yàlla yërëm ko su yeexee ñu amin waay amin Pape suñu maam Abbas te ni ko yëkkati daf ma am jabel eh, sunu yaay Aminata Dieng mi ngi woote fële ca waagu ñaay moom moom wax dëgg yàlla mooy yaayu asfiyaay sax la ñuy wax waaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar yaa am na xam naa nag gëj naa dugg ci tàkkusaan bi nag moom lool lool lool lool xawma nag lan moo ko waral waaye gëj naa dugg ci tàkkusaan bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar yaa ngi nekkoon fu am solo ci góor gi ah. Serigne Abass Sall waaw ah, moo wax ne mu ganee àdduna ci ay kilifa yoo xam ne ñu ñu xam lañ ci réew mi mhm. ci xam-xam ci wilaaya ci ragal yàlla ak ci daan gis ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy maamam Cheikh El Hadj Malick fekk na ko fële ca Ndar fekk ko ca ngi gi itam. wallaay xam naa ni téléphone bi moom buñ ko <laughs> xam naa ni mi ngi toj moom wax dëgg yàlla ndax ñu bari dunoo ñu jël ki ne ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam sang bi na nga ñu ngi lay ziar bu baax. naka yi nga am ñu ngi ci ah, ñi nga am jàmm bu baax a baax tur bi nan la ak fooy wootee. Baye Fallou Maodo maa ngi lay woowee Parcelles ñu ngi lay nuyu bu baax. macha allah ñu ngi am mbégte kontaan ci émission bi. waaw waxal ci kaw waxal ci kaw Baye Fallou Maodo. ñu ngi lay dégg yëkkatil sa kàddu ci kaw. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg Baye Fallou Maodo. man ñu ngi rafetlu télé bi macha allah am na solo de c'est première fois may may woote ci rajo bi. jërëjëf jërëjëf. waaw ndax saa yi moom chaque jour ci wéral laay dellu. wallaay dëgg la. seen télé bi rek. da ngeen am solo. ndax sama gaar dëgg la ndeysaan. waaw macha allah amin amin yaa rabbal alamin amin. mu teelu ko boppam ci war ci amin amin. waaw baax na waay jërëjëf Baye Fallou Maodo kontaan nañ bu baax euh, mi ngi woote foofu parcelle mm-hmm. euh, Baye falo Maodo nuyu bu baax euh, soppe yont yàlla Mouhamad yi nga xam ni ñooy les fidèles de Asfiya yi nga xam ne ñoo wax dëgg yàlla ay jàmbaar lan ànd dooleel Asfiya yi madame Diop ça va Aïda Touré ñu ngi koy nuyu bu baax madame Ben Diop nuyu ko ziar ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar bu baax góor gi. El Hadj Moustapha. waaw Pa Ahmed Tidiane Chène ñu ngi lay nuyu. ah Moustapha kontaan nañu tàpp jërëjëf seen. Moustapha bëgg nañu xam nga li tax tey ñu gën a dugg. mooy nagu Cheikhouna Ahmed Tidiane yi. Chérif radiyallahu taala anhu. ñoom ñëpp benn lañu. wallaay dëgg la. ku bëgg am jàmmu àdduna jàmmu alaxira. Mhm. jël ñëpp teg ci kaw. wallaay dëgg la. maam Abbas li mu woy macha allah. wallaay ñu la dalal tey macha yàlla yàlla leen yu. amin amin waay kontaan nañ ci ñoom. amin kontaan nañ ci ñoom. amin waay kontaan nañ ci ñoom bu baax. amin wallaahi kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax. jërëjëf yàlla yokk xamam. moom sëriñ bi yàlla na yàlla yokk seen le amin li ñu wax ci plateau bi macha allah. soxna euh, yaayu daaral abi bi nag. Mm-hmm. ñu génn léegi Moustapha. waaw. boo ko déggee sax xam ne borom pas-pas la wallahi wal quran karim wallaay dëgg la ndeysaan bu déggee intervention am damay dégg wallaay dëgg la ndeysaan moo rek maam Oumar Ndiaye ak Pape Khalifa macha allah yàlla ko yàlla jubooleeg xale yi yàlla ko yàlla jubooleeg xale yi amin amin waay amin kontaan nañu amin amin talibé Cheikh tey déglu waxtu bi ndeysaan suñu gaa ñooñu lépp luñ fa yëkkati rek may nañ ko talibé Cheikh yëpp yi ci àdduna ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeru Cheikh na Ahmed Tidiane seen chérif moom la jërëjëf Mbaye jërëjëf. jërëjëf Pape Tidiane Sène mi ngi nekk fële ci Cité Fadia wax dëgg yàlla am pas-pas foofu Cheikh ci euh, rajo bi ak télévision bi yëpp nuyu suñu yaay Awa Sène da baax nga xam ni euh, wax dëgg yàlla ko sopp Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax la xaaruñ jël ki ne ci ligne bi rek après Mamadou Ndoye nag nga nga may ñu tuuti ñu àggalee tabarakallahu lii euh, Oustaz Kama di wax am na solo salaamaaleykum. allo Moustapha Mbaye waaw. naa def na bi la ñu ngi bu baax kooku kontaan nañ ci yéen maa la doon woo léegi may jàpp tur wax nga dëgg naa def ñu ngi lay ziar bu baax yàlla na la fayal suñu mag ñu baax ñi amin yaa rabbal alamin yàlla nañu yàlla rey ci a fi dekkal ñu ci amin topp Serigne Babacar rek moo tax may dugg wallaay dëgg la wallaay na leen yàlla defal jàmm ci barki yonante bi tur bi nan la man la Fanmata Dia quartier Aw ah quartier Aw Fanmata Dia waaw quartier waaw quartier Aw Kër Massar quartier Amadou quartier Amadou Aw wax nga dëgg fan ma ma jox la sama tante xaaral ma jox la sama tante balaa crédit bi di jeex ndax xam naa ni ah, euh, émission bi di des bareetul salaamaaleykum maa ngi leen di siyaare de yàlla yàlla nangu ziyaar maa ngi siyaare waa kër Alaaji Maalik yëpp yëpp même bu liir bu sax maa ngi koy dëgg la. <laughs> di siyaare sama xarit ba nag sama so xam ne sama yëpp moom laa ko jox mu njool fuuta. sëriñ Babacar Sy Abdoul sunu sëriñ. wallaay bëgg naa leen maa ngi siyaare ñëpp famille sëñ Babacar Sy yëpp bàyyiwuñu kenn. ñun dañoo dee ci tarixa bi rek. ndeysaan. dama dama la bëgg nag sama xol ndax rek sa yaay daa woote wax wax wax ju rafet. wallaay dëgg la ndeysaan. nga ba muy dem màkk nga ni mu ni ngeen ko doon wooyee muy muy kii. wallaay dëgg la ndeysaan. wallaay man bëgg naa a nag xam nga nag lan laa la yéene. sama doom ji jigéen di laa la koy jox ci addiya sëñ Babacar Si barki alxuraan al karim ah est-ce que jërëjëf yàlla na wal kitaab bi ayda sama ayda sow mi laa lay may yow sa yéene rëy na waaye yaakaar naa ne way wi këpp gaaw kenn du ko way ci tàtt tefes xam naa ni Malika ne bu ñëwee Malika rek naan ko da nga ma waroon a woo téléphone rek ñu jël la ci suuf da nga waroon wax jël leen ma ci suuf waaye tabaarakallaahu sa yéene rëy na Pape Moussa Diop mi ngi ree bay xaru yaakaar naa ne Pape Moussa laa ko gën a yéene sax parce que Pape Moussa moom bàyyi ñu viré ko ci Pape Moussa Seyna Omar Dia mi ngi tàllal loxo fële ca studio bi Mouhamed Ndoye Mouhamed Ndoye moom it mi ngi tàllal loxo <laughs> ndeysaan tabaarakallaahu si génn léegi ñu ngi koy sant di gën a ku baax la wala ñu jox ko bokk euh, euh, Cheikh Cheikh xam naa ne Cheikh moom bëgg na Cheikh waa xanaa ñu jox la ko rek xam naa ne Oustaz Dieye moom doyal la ndeysaan yàlla yàlla euh, fay ko ci barke yonent nekkoon ci lu am solo Mouhamed Ndoye xam naa ni da ngay daal di téye téléphone bi léegi rek ñu euh, insha allahu taala ñu daal di euh, Mouhamed euh, mm-hmm. Kama mm-hmm. Oustaz Kama dafa am ci lu am solo lu mu nekkoon di di sunu baay Abbas Sall yaakaar naa ni nga résumé ko rek. Ah, ma ne ma ne ay nga résumé ñu mm-hmm. dugg ci xilaas bi xam naa ne. waaw ñu dugg ci xilaas bi xam naa ne il faut ñu laal ci benn béyt ci xilaas bi ndax temps bi la ñuy njëkkanteel nga résumé ko ñu dugg ci xilaas bi mm-hmm. insha allah laal ci benn béyt ci ngoonu yoon yonent yàlla muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam insha allah sëñ abbas comme ni ma ko waxee léegi rek mooy ay cosaanam amoon ak kóllëre ak cheikh sidi haaj malik radiallahu taala anhu ca ndar ca ngiig eh, ba fépp fu ñu mën a nekk kóllëre googu nag moom mooy continuer eh. di dox ci diggante ñaari kër yooyu tabaarakallaahu di rafet mhm. ay wax ak i xasaayit yu mhm. rafet di ci jib waaye nag sëñ abbas radiallahu taala anhu ci biir tariqa Cheikh Ahmed Tidiane nag mu nekk ci kilifa mhm. nekk ci aji yare nekk ci aji gindee ci ay waxam aki i xasaayidam ak wayam aki i ñaaxaateem eh, eh, surtout ci wayam boobu nga xam ne ci wolof la ko def ngir ñaax rek mbokk jullit yi ci lu jëm ci seen wàllu diine ak lu jëm ci seen wàllu tariqa mm-hmm. ak lu jëm ci wàllu tasawuf yooyu yëpp uh, faram-fàcce na ko ci ay wolof yu leer yu wóor comme ni mu koy waxee mm-hmm. eh, yooyu na xëy na di ko tasaare mm-hmm. wala di ko di ko di ko yaatal xëy na xajul ci ci ci waxtaan wi en tout cas li ñuy tënk mooy sëriñ bu mat sëriñ ni ñu koy xamee كريتيري يمي جوخي يوي ييب دا فاي داجي سي سيغ عباس الله اكبر مو يار اي طالبيم نك تا سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم طالب يو خامني بو نيو جولي nga len di xam طالب وخنا بو جولي nga xamne ki طالب سي سيغ عباس لا ولا بو ووري ولا بو وخه ولا بو بو وخه تي شيخ ولا بو اكسبريمي و تي فيلم تي شيخ nga xamene ki ci wa keur seigne abbas la mm-hmm. mm-hmm. bok kon ñom ci diine lañ ci bëgg Cheikh Ahmed Tidiane la leen xamé ci fonk seen tariika la leen xamé ci fonk seen mbokk julit yëpp lañ leen xamé nonu nak la Seigne Abbas yare ay talibem yëpp yoy itam moy yar gi mu fi bàyyi mom la fi bind mom la wax ci ay wolof mom la wax ci digënté talibé Tidiane ak morom ma fa mi waxé ci wolofal ba naan yeneen ba mo wax ne cheikh wa cheikhaw mo wax ne mamam wax nako wax leen ne leen bu kenn lor kenn maanaam taalibe tijaan ci seen biir. bu kenn lor kenn. ne ko. Mhm. ku lor ci ñoom kenn. loram nga dal ci man. man yonent ku lor taalibe tijaan bu lor moroomu taalibe tijaanam. waaw mhm. lor gi day dal ci yonent bi. sallallahu alayhi ne kon nañ ñaan ci yàlla ay musal yu sax ci ñun. ñun yi nañ sax ci ak wattoonte. Mhm. ak balonte ak muñalante faw tey muñ leente wut ñàkk metti na lu raw cig metti mooy am ba noppi ñàkk njëkk a sotti taalibi tijaan boo xam ne ñàkk a fonk mbokki tariqaam mhm. ci kër guñ manti bokk mhm. wala doyadal benn kër mhm. wala xeeb ay ñoo xam ne ay xalifa nañ ci xulafaaw seen Ahmed tijaan yi duñ sa sëriñ rek wala jokk woo fa joxuñu la werd nga doyadal leen wala nga ñàkk leen a fonk fonkeel gi nga fonk sëb sëriñ mhm. loolu day dog taalibi ci ci ci tariqa bi moom la sëñ xaari naan bul xas waliyu bu koy gaaral bu koy doyadal loolu sax waaye yàlla la leen mu sànni la loolu sax mooy mhm. taalibi tijaan ak beneen waliyu bu bokk feneen mhm. mais ñun problème bi ñu am en tant que ay tijaan mooy nit ku nekk dafay dooleel fi mu jëlee werd neenal feneen fa te fépp di ëttu Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala fu nekk Cheikhna Ahmed Tidiane am fa ay xalifa Cheikhna sëñ Abbas wax ci wolofal bi ne am na ci ànd ak nga xam ne kullama zamani am na ci ñoom taalibe cheikh yi mazahiru tijaan yi mooy xulafaaw yi ay takk ndeer lañu di ñeel jëmmam ja may balluwaayu bépp mbóot ju sell ja nga xam ne kon kenn ci ñoom boo ko loree boo lor nga cheikhana te kon daal dil pare te xam ne lor nga sayidal wujudi kay balluwaayu bépp may wal juudi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñoom ñoom xulafaaw yi mhm. ci wax ju wér mhm. ñooy cër ya ñooy cër ya wa cheikhu mooy jëmm ja seetal mbir ya kon xalifa Cheikh Ahmed Tidiane dafa am ku nekk Tiwaawan koo xam ne mooy loxo cheikh mhm. kee di beneen mbagg bi kii di bopp kii di tànk léegi ngay kajji tànk ba ngir fonk ngi nga fonk ab bopp yow yaa jëmm ji ngay ji ngay dawe dal mooy Cheikh na Ahmed Tidiane kon taalibe Cheikh daal dafa war a fonk ñëpp loolu nag moom la Cheikh na Ahmed Tidiane doon doon doon doxal moom la sëñ Abbas doon doxal ko ci digganteem ak kilifa yi ak taalibeem yëpp tabaarakallaahu xam naa ni eh, li nga wax ci sëñ Abbas Sall eh, ñaax gi mu ñaax taalibe yi mu am solo loolu nga xam ne taalibe Cheikh noonu la ñu war a fonkante dan bëggoon nañ waxtu wi gën a yaatu parce que da ngaa nekk fu fu ama am solo fu ama am solo nga nekk ci diggante taalibe tiijaan yi ni ñu war a fonkante wax dëgg yàlla waxtu yu bëggoon nañ mu may ñu ko waaye nag xam naa ni comme que waxtu wi dafa xat eh, dañuy daal di bu fekkee Mouhamadou am na ñu nekk ci lii bi ñu jël ñaari auditeur rek Cheikh daal dugg ci eh, xilaas bi ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mi ngi yëg xaaruñ jëkki na ci ligne bi. salaamaaleykum. Mm-hmm. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaam sëñ ñu ngi ziar bu baax soxna si. ñu ngi lay nuyu di la ziar. tur bi na la ak fooy wootee. Sala Ndiaye benn baraak. Ah, mère Sala Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax benn baraak. waaw ñoo ngi fi la ëppee. ci tàkku saanu nabi bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi sangu-sangu yi mm-hmm. allo ñu dégg bu baax Adja Sala maa ngi siyaare di jaale sunu sëriñ bi mm-hmm. sëñ Pape Malick si radiallahu taala an waaw ñoo koy jaale demoon nañ waa woon sax waaye nag ñoo ngi leen yeesal sunu njaal di jaale maa on ay ñoo koy jaale bu baax di jaale borom kii maam fa wàddu wele Mm-hmm. ñoo ngi koy jaale bu baax dañoo xamul këram ci Tiwaawoon waaye kon ñu woote foofa sax de bañu mu mu yóbbu ñu këram wallaay dëgg la wax nga dëgg wax nga dëgg waaw waaw moom nañ Tiwaawoon yal na yàlla yokk leeram amiin amiin waa mi ngi noonu tabaarakallaahu Sala Ndiaye benn barak ñu ngi koy nuyu bu baax moom euh, wax dëgg yàlla soppe yonent yàlla Muhammad la ak Adja Fatou Mbuub euh, ca benn barak moom mi soppe yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku nekkaat ci ligne bi Mamadou Ndoye Mouhamad Ndoye ñu jël ko tabaarakallaahu salaamaaleykum dafa mel ni kooku dem na kon Cheikh Ahmed Tidiane euh, Cheikh Cheikh Cheikh Tidiane yaakaar naa ni mii mi Cheikh El Hadji xaaral ñu jël kii kii nekk ci ligne bi salaamaaleykum. Moustapha Mbaye. waaw. dégg naa yow gis nga yàlla xam na ne chaque jour te jëfee damay buuxante ci ligne bi ba sonn. ndeysaan waaye yaa Aminata Dieng wallaay wax nga dëgg. non xam nga du ma parce que suñu xonneexul ndax suñu Pape Malick si ñu génn àdduna moo moo tax essayé du nga dëgg oo. wallaay dëgg la ndeysaan. dama la gëj a dégg yow yow Moustapha Mbaye yow xam nga sama doomu xol nga. wallaay. mais nag léegi nag dama am ñaari doom xam ne boolewuma leen ak kenn de président directeur général. wallaay. ak euh, président directeur général Libre Alburax maam Khalifa Ababacar Si Ndiaye. wallaay dëgg la. waaw Moussa eh gis nga ni yàlla xam na ne billahi wallahi taala man maa leen bëgg a sax. man ma leen may nag dara mais mën naa leen may affection. ak tendresse mm-hmm. loolu mën naa leen ko may parce que ñoom comme seen bàjjen xaddi si dafa génn àdduna fama franchement man loolu man naa leen ko may yow ñëpp say doom la wax dëgg yàlla donc pa Pape Cheikh Tidiane Sène moomu waaw dimbale ma yow am nga sama numéro amatuma yow sa numéro moom moom tamit maa ngi koy gërëm di ko sant d'accord incha allah wutal ma numéro ñii Euh, sama ñaari doom yooyu nag man léegi man maa leen di war a jàpp addee ndax maam Babacar Si. wallaay Cheikh Mar ak Oustaz Modou Kama. waaw ya ya ya Aminata Dieng tabaarakallaahu moo doon woote noon di yaayu asuyaay <laughs> euh, doomoo ñëpp wax dëgg yàlla Cheikh Mar nga dugg ci euh, sang bu tedd ba Seydina Muhammad ci mimi ba Oustaz wax ñu ci incha allah. أرقاك يا أمالي سوى المحل

الأخوة الجو يا يمم دولامين أمين أبدا أصفيا الأخوة يا يمم دولامين أمين أبدا أصفيا الأخوة يا يمم دولامين أمين أبدا yaayu Mamadou Lamine Aminata bari keer yow da rafet jikko yaayu Mamadou Lamine Aminata bari keer rafet jikko yaayu seen loxo yi ca kaw yaayu Mamadou Lamine yaayu Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou mami Mamadou Lamine mami Mamadou Lamine murata mami Mamadou Lamine kaabi mami Mamadou Lamine kabluwe mami Mamadou Lamine halibe mami Mamadou Lamine fiire mami Mamadou Lamine malike loxo yi ca kaw ca kaw nadar nadar ay nadar nadar mami Mamadou Lamine ay nadar nadar ay nadar nadar mam la ci moom dana ci naanata mami mamadou la wiyanata mami mamadou la mudirikata mami mamadou la elias mude mami mamadou la wiyanata mami mamadou la wiyanata mami mamadou la adinana adinana adinana moy mami maami sëñ Mansoor ay waxam du day maami sëñ Mbay Mansoor ay waxam du day waaw waaw maami sëñ Mbay Mansoor ay waxam du day dana adnaan ala mawda da jaxaay ay waxam du day waaw maami sëñ Mbay Mansoor ay waxam Maodo tubloo na ceddo teral ñeen laaja Musa la daw góor biram Amadu Bay Maodo Usmaan sunu maa Maodo fi la rawee jaaj ba tey ji kenn dabu ko àdduna naa di kenn ay kaaju ay fu ngeen jëm jama Maodo yi bàyyi Maodo ay du day Babacar loxo yi ku bëgg Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar yaa ngi daje mu Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar yaa ngi daje mu Serigne Babacar adnaana adnaana adnaana ay waxam du day damani ayaatu xamlawo ayaatu ma awo ayaatu ma adawo na ay gaaju ay fa ngeen ay waxam du day dama maami Abba Sall sang bi ay waxam du doy bay soxna jaay sang bi ay waxam du doy yee maami Anta Sall sang bi ay waxam du doy adnana adna yow jaxaay mooy waxam du doy adamani aditni zaran ma adam aji jaawi so ustaz moodu kama yeru yaa du koy firil ba mu tas tasaare ko ba ñëpp Abbas radiyallahu taala anhu wax na ci seex lu kenn waxul def na ci seex lu am na ci amul yàllaa fay yàllaa ko may te moo di may jóg di way sëriñ Abaas mi yàlla fay may ko lu leer léppam ni rey na yàlla buur dolli ko may sëriñ Abaas ah, ah. xerew ma way ku baax jëfam ci diine doy na mbaax sëriñ bul di añaan bul di naax sunna si rasool bi moo ko raax sëriñ Abbas négal ma wax la ay mbiram lu ñëpp seede mooy le am sëriñ Abbas tariqa Cheikh Tidiane ndegam sharia bi moo di sasam sëriñ Abbas musul ni yàgg ngir jomam melul ni buun ak kii leeral na xol ba ak jëmmam lu yàlla bëgg mooy jëfam sëriñ Abbas sagal nga képp kuy jullit Serigne Abbas feesal nga lépp luy desit Serigne Abbas sa waxtu jaamu yàlla moom du ko maslaaboo di njiit Serigne Abbas baay soxna Njaaya Mayoro Sall mooy sa baay maam Fatou Wade mooy sa yaay maam Maodo Malick moo la jaay meññet bu yor moo gënu xaay na ñëpp ni borom guddi gi ah, ah, Sall mooy sa baay Mam Fatou Wade mooy sa yaay Mamadou Malick Boole Jaay ne ñëpp ñor moo gën bu xaay Serigne Abbas Seex moo la fal def la doonoom dëgg la mu jox la lépp luy solo dëgg la naat di lay moon yëfa nu ko ah, Serigne Abbas na ci ba teeri faas yàlla ak yonent mooy sa essence dëgg la Serigne baraw galaas yow la nu xam yaay sunu saas ci borom guddi gi sëriñ Abbas Cheikh def way wi ci yow na way wi jolli jëm ca kaw fii ak wuute gi aw di ñëw man maa ngi ñaan muy law di law ni ñëpp ne amiin sëriñ Abbas bu ngi jotee ñëpp a ngi daw nitam yi ak jinne ya aw ca yoon wa ngir taataani yiw ngir yàlla ak may ya fa dog ya fa ngi amul feneen kaamil ya doo ko feneen seytaane daw doo ko fa seen yàlla fa ne du booli niin ah, Sëriñ Abbas ah, ah. Sëriñ Abbas Sëriñ Abbas man maa ngi ñaan ilahana ci darajay shafi'ana mu may ñu luy sururana yawmal jaza wa fi dunya baat baa ngi nii yaay gi ko moom ruugaa ngi nii yeewal sa moom subaak marax ni yaay borom baraw xasaana kaabak ni ñoo walaysa li walaysa li huna walaysa li haka ya amali ما مولنا سوى المحبة سوى المحبة سوى المحبة سوى المحبة ah Cheikh Ahmad Tidiane Mar yaakaar naa ne képp kuy seetaan tey takkusaan yonent yàlla Muhammad fa nga toog sa xol sedd na bég nga ndax kan borom barrière leer ba ca Madina di Sayyiduna Muhammad ak li nga wax sëñ Abbas Sall lépp ci yonent yàlla Muhammad Cheikh Mar kontaan nan yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla sagal la wax dëgg yàlla foo àddoo xel yépp dal ndax ni ngay taggee yonent yàlla Muhammad day ànd ak ba pare ci dënn lay jógee fa tabaarakallaahu euh, yaa oustaz euh, xam naa ni dañuy daal di euh, tëj rek xam naa ni walay sa moom boo ko fi firee moom yaakaar naa ni ginnaaw gee lañ jëm amalun alqaaka yaa amal yi yonent bi kooku walay sa kooku dañ koy firi ay weeri weeri weer du jeex xam naa ni kooku moom da ngay daal di rek daal di tëj xam naa ni waxtu yu jot na nga tàggatoo ñu jox Cheikh Mar moom it wala Cheikh Mar tabaarakallaahu yow nga nga tàggatoo ñu jox Ousmane moom it mu tëj oustaz Modou Kama momit mu tëj waaye walay sëli mom boko firé dul fi jogé xamna li nga ci nar lépp ma ngi gis yaa ngi walay sëli diko yéru rek amalun alqaka ya amali si wal mahabbati wat taadimi was salami boko fi nekké du firé dul fi jogé waye yoon yamul ci ben takusan yoon ci yàlla muhammad xamna ni mi ngi nonu yonent bi rek insha allah taala ba ila yawmi diin mi ngi nonu yàlla nu yàlla defal jàmm Cheikh Mar salaamaaleykum wa rahmatullah sha allahu haaji mustafa dem nga Màkka ah di ziare ji ko ma yónni yàlla Muhammad de mi bëgg naa bii bii naroon naa dem waaye dañ ko aj waaye déen moom ku ma fa dëgg ci ah, borom barrière or ba ni ma massa xaw ma nag waaye ma fa de <laughs> moom tàkkusaan bi ni mu alaa dawmee bi sallallahu alayhi wa xam ni sëñ Abbas tax mu alaa dawmee mhm. yow na si yàlla yàlla na yàlla yàlla yàlla yëkkati amin nga xam mhm. mooy tare tariqa bi wallaay macha allah ku ko tudd sa xel dem tuyaaw damay wax Sénégal ñëpp sëriñ yëpp ay lewal lañu amul deuxième. waaye wallaay dëgg la. Cheikh Seydi Ahmed Tidiane moo toll noonu ni ko oustaz Modou Kam waxee loolu. Mhm. lee loolu la benn shaar di wax bari na ku bokk ci tarixa bi. Mhm. nekk ci benn kër. Mhm. nga jàpp ne rek fa nga ne rek fa la lem ba nekk. fekk yow ci lem bi nga yem. lem bi nga yem. waaw am na ñu am na ñu ñu ñuy tàqamtiku meew. wallaay am na ñuy tàqamtiku tàndarma. te yëpp sa saf suukar. yëpp saf suukar macha allah benn shaar dafa wax ni. laa taxqiran na saxiran fii mu muxaasamatin Mm-hmm. inna al baudata tudd nii muqlatal asadi wallaay dëgg la bari na koy xeeb di ko romb mm-hmm. jàppan du dara mu ne bari na lu bëtu gaynde di jooy wala muy naaj fekk yow moo ko ca màtt wallaay moo tax tarixa bi ñëpp yam macha allahu taala baa ngi dugg si wallaay xam ko ci waaye dañuy jokkoo rek ngir yàlla ak suñu soppe di sëtu sëñ ab xam naa ne tàgg tabaarakallaahu yàlla na yàlla yi ñu yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm muhammad ya muhammad ya muhammad ya habibi ya muhammad الحبيبي يا محمد يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد